ko seetaat sànnil ko Zara lu baax ba siis seen doom a ngi mën ngeen ko diis yokku doole bi Sara Yane Thiam Sara Yane Thiam Liberté 1 ba siis man je suis un jugeant policier à la retraite en même temps conseiller municipal de Sicap du ñu ñëwoon tey jii du ma fi ñëwoon tey en tant que représentant des retraités de la police pour soutenir Zahra madame la ministre Zahra Iyane Thiam parce que xam nañ ne actuellement ñun duñu duñu xool ni elle est la meilleure profil pour pouvoir diriger les SICAP nu nu nu gis clé bi ci affaire am ci mun nu jox nu lire mu doon lu nekk complet moo tax man sax ñàkkumoon si parti am mais dama jóge si parti am ñëw pour uniquement ànd ak moom parce que xam na ni actuellement incha allah di koy ñaanal. di ko ñaanal di ko ñaanal mu gagné SICAP te buñ ko ga buñ ko jàppale ba mu gagné SICAP suñu bopp lañ ko defal parce que elle est elle est la meilleure profil pour pouvoir diriger les SICAP yaakaar nañ si moom mu jàppalee nu ñun les personnes âgées nga xam ne ñu actuellement ba léegi ñun ñoo yoree kër yi parce que xam nga léegi xale yi liggéeyuñu tax te te liggéey dafa jafe te ñun ba léegi ñoo ñoo koy gérer pour ñu jàppale en vrai suñu santé yëpp gis nañ ko si projet yi ak sécurité bi ah ak ak sécurité bi ak aussi environnement bi lool daal SICAP soxla na ko quoi environnement soxla nañ ko sécurité bi soxla nañ ko jàppale les personnes âgées jàppale aussi xale yi parce que xale yi aussi ñoom ñooy avenir te vraiment SICAP bari na ay xale yoo xam ni defuñu dara ñooy sunu ay doom sunu ay sët te si ñun la ñu yaakaar te yaakaar boobu nu yaakaar moo tax bu bu leen ne woote leen fii jaar seen affaire mën a baax xale yi daan ko def te daan nu ko defal moo tax te te yaakaar nañ ko si moom mii du fait que moo doon ministre de l'action sociale te dëkk suñu gox nekk ñun ah bala ngay dàq fenn jaq mu jëkk ñëw si yow te am nañu yaakaar si moom incha allah te yal na ko yàlla defal. waaw d'abord ñu ngi rafetlu élan bi nga xam ne moo am au niveau des populations sikapoises ndaxte secteur boo laal rek les gens viennent pour témoigner de leur solidarité de leur accompagnement euh, ci dynamique bi nga xam ne moom la Benno Bokk Yaakaar porté mais surtout. ci euh, attentes yi ñu am te loolu moo ëpp solo ndax nit ki boo demee bay wut ndomba tànk du caageen ne rek danga ko war a am pour am ko mais li ci ëpp solo mooy boo ko amee li nit ñi di xaar ci yow nga mën ko def te li tax euh, soutien yi manifestation de soutien yi baax daf ñuy permettre aussi ñi nga xam ne ñoom la ñu war a liggéeyal ëllëg ñoom la ñu war a jagleel ay politique ñu mën a xam yan mooy seen préoccupation te dégg nañ bu baax li mu wax may ma koy remercier di remercier waale Euh, personne euh, retraité policiers yi nga xam ne moom la représenté représenté les sages ci wàllu wér-gi-yaram bi nga xam ne wax nañ ko prise en charge bi médicale bi mais également ci euh, préoccupation jeunes yi te loolu yëpp nekk autour de l'employabilité maintenant nag am na beneen question boo xam ne suñu sages yi fi au niveau de Liberté abordé nañ ko parce que nee nañ ñu d'habitude bu ñuy wax ci sage rek dañuy wax ci seen santé mais ñoom tamit bëgg nañ entreprendre soxla nañu financement xam naa loolu également dañuy xool rek nuñ koy defee ba nga xam ne euh, loolu day wane ne euh, c'est toutes les populations maintenant qui sont engagées dans le développement et qui veulent mieux et plus. Mieux et plus, ce sera notre défi lorsque nous serons portés à la tête de la commune, allah